asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi nekk ci Urazul Irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm yal na yàlla defal nu jàmm ñu dégg jàmm di gis jàmm yal na yàlla jàmmal ñu keroog si jàmm jafee yal na yàlla defal nu li gën ci nun te mu gënal nu yal na yàlla musal lu musal suñu njaboot kër ak àll yal yàlla aar ñu sàmm ñu laq ñu fa yàq yëggul ku ñu ne la mbugal ba fàtte yàlla yàlla na yàlla mbugal ba nga fàtte ñi waaw mu ñu ngi nii ñëpp rawante ne sëñ Abib Gaye mi ñu fekk ci bunt bi sëñ Abdoulatif mi jiite mbooloo mi sëñ am setla yi ak euh, sëñ Moussa Ka ak mboolem ñëpp bawuñu kenn daal nuyu nañu ñëpp waaw xaw nañoo am ak euh, tardé léeg-léeg ci yu nii léeg ngeen toog ay ñaari fan lu ngeen ñu dégg xëy na du ñëpp sax ñoo ko réere waaye ñàkkul am nañ ci ñoo xam ne buñ ma déggulee dañuy xam ne am na galfan yu tax waaye galfan yooyu su su su su su su par ci koo rek da ngeen may déggaat eh, ñu jéggul ci ñaar ci fan bi ak bu ci topp eh, keroog dafa am ku ma laaj ci sama xaas di ma di ci problème mu Rajab Tayyip Erdogan di ma wax ne daa mel ni Erdogan président Israël dafa ko dem seeti mu di ma laaj ne ma waaw lan la Erdogan di def nii Israël lu mu def ci Palestine Erdogan Israël dem maanaam président Israël dem di ko seeti waaye daf cee am yu bari yoo xam ne liñ ci xam du les mën a leeral ndax itam xam ngeen ne àddina bi ñaari xeex ba ñett ñoo fi nekk xeex bii dañ koy xeex mu nekk xeexu xeexub arme jàkkaarloo di reyante xeex bi dañ koy xeex mu nekk xeexu diplomatie xeex bi dañ koy xeex eh, ba mu sotti ñi ñi a xam ne ndekete lii moo taxoon nga di ko xeex xam nga saa yoo xamee ne Israël daay tàkk na fa Rajab Tayyip Erdogan day jël ay roplaanam yi ni yu mag di duy ndox dem di ko fay loolu ñu bari jaaxle nañ ci waaw Rajab Tayyip Erdogan lan moo tax gott yu mag yi ci Israël di foore yu mag yooyu fi nekk saa yu fi daay tàkkee mu jël aéroplane am dem di ko fay waaye gaañ di dafa am yu bëri yoo xam ne mënoon nañ koy bàyyi noonu rek ku yàlla baaxee nga gëstu ba xam ko nga noppee ko waaye nag nit moo dañ kumpa ba ne lépp lu doon rek dañ ko war a wax ñu xam ko waaw Rajab Tayyip Erdogan bu daay tàkkee ci forêt bu nekk ci Israël mu jël aéroplane dem di ko fay euh, kane bàyyi leen mu tàkk kooka moom daa gëm ne forêt boobu Israël la ko moom moo tax waaye Recep Tayyip Erdogan dafa gëm ne palestiniens yi yàgg-yàgg danañ jotaat seen suuf kon lépp lu yàq suuf sa dañ ci taxaw Erdogan day jël ay bu daay tàkk Israël dem di ko fay ndax bu day tàkkoon ci biir baytul muqaddas ci masjidul aqsa Erdogan dafa war a dem fay ko wala dafa war a wàcc ci jumaa ja tàkk def ab doom daanu ñu ñu toxal ko mu nekk daan du foy foy loo mënta jot lépp lañ ca jot danga koy téye loolu moo waral saa yi ngeen gisee daay takk ci biir Palestine gi nga xam ne Israël moo ko colonisé Recep Tayyip Erdogan day jël aéroplaanam dem di ko fay képp koo xam ne kii bu ak yàqu dee am ci suufu Israël nga ne bàyyi leen mu yàqu rek gëm nga ne suuf soosu lew na ñun dootuñu ci jotati ba mukk waaye képp koo xam ne gëm nga ne day yàgg rek waaye danañ nanguwaat président mu xatas dellu seet ko jullit ñi boo fa gisee yàqu-yàqu yoo xam ne ma nga aju ca biir réew ma dañ koy aar gaa yi autoroute bi Sénégal njëkk am Sénégal tabaxu ko tubaab yee ko fi tabaxoon ci Patte def ko kursu kaayu oto ndax su fekkonte ni autoroute boobu jamono ji fi tubaab bi nekk mu ngi doon yàqu sénégalais yi ñëw di ko defar am ko naa bàyyi leen mu yàqu li tubaab yi ñoo ko fi def bàyyi leen ko mu yàqu waaw bu ñu ko bàyyi mu yàqu ba tubaab bi dem bu ñu xoolee ne lii intérêt lii kat suñu intérêt la est-ce que duñ xalaataat ci ne nañ tabaraxaat autoroute bi kon sàmm ko ba mu dem bañ dem bàyyi ko fi moo gën mboolem li ko dale ndakaaru ba tëngéej régolu ngeen fi gis ak yëpp tubaab bi moo ko fi def régolu tëngéej boobu jamono du moo ko fi def mais ci temps bi la ko fi def ba tubaab bi moom Sénégal li mu fi jotoon a def bu fekkente ne lépp lu ci yàqu rek ñu ne bàyyi lu mu yàqu li tubaab yi nii Sénégal tubaab yi dañ ko nangu kon bu ñu dem ni su bàyyi dara lu am njëriñ yàlla teewoon Israël mu tabaxel mu tabax Palestine ba mel ni Los isa ji isa jaa wa'dul axira ji'naa bikum lafiifan yonent bi yàlla moo ko ko wax ne ko banu israil danañ leen dellu siwaat ñu nekk ay giire xeet ci wàllu làmmiñ te bokk askan ci wàllu deret waaye bu ñu dikkee dikk googu ci baytul muqaddas ba nangu ko lañ leen génnewaat ca biti kon ku gëm ne baytul muqaddas dañ ci jotaat Israël dañu génnaat Palestine lépp lu fa nekk nga xam ne bu gaa yu jógee bàyyi ko fa mu jëriñ jullit ñi bu dee yàqu da ngay dem defal ko loolu moo tax Erdogan nanguutu jël ay bomb toj Tel Aviv guerre bi ne combay mu daaneel état si yàq si ndax euh, palais de justice palais présidentiel tubaab bi ko fi tabaxoon buñ ko tojoon buy dem ba du ko fi bàyyi gaar yi newoon ci réew mi yëpp tubaab tabaxoon buñ ko tojoon buy dem du ko fi bàyyi école yi mag yi ne ci réew mi école régionale Diourbel ak école école yu bari ay aéroport Dakar yoo fukk ak ak ak pooram Dakar wu lépp tubaab ko fi defoon buñ ko rajaxe woon buy dem du ko fi bàyyi maanaam nit bu la ëppee doole jël sa suuf di ca liggéey liggéey boo xam ne lu lu mën a yenu ëllëg yóbbu ko da fexe noo def ba génne ko suuf sa rek waaye lu yàq suuf sa bu ko def ndax boo ciy jot fekk mu ne boy beneen bi ci des mooy lan moo tax Rajab Tayyip Erdogan di nangu président Israël di fa dem di ko gane yi ak Israël li mu def ci Palestine lépp ci ay ñaawteef Erdogan nangu Israël dem di ko gane yi foofu dafa am loo xam ne ñu bari lañ ko fi dul setantal Erdogan Israël dafa coloniser Palestine di fi gas ay teeni gaz yu nekk ci biir suuf si ak di fi gas ay teeni gaz yoo xam ne mi ngi ci géeju Palestine googu bi mu gasee teeni gaz yi ba noppi moom benn client rek la am bu mën a jaay gaz mooy Europe te léegi tuyaux yi nga xam ne ñoom la bëgg piire yóbbu ko Europe géej gi mu war a jaar muy baarul ija côté bi muy jaar dafa nekk côté bu ñuy xëccoo diggante Yunaan muy Grèce ak Turquie te àdduna si yëpp seere nañ ne tubaab bi dañoo bëgg a def ay tappale waaye suuf soo géej googu foofu Turquie ko moom ci zone la bokk te Rajab Tayyip Erdogan it niiwul doole niiw doole goo xam ne manes na ko janjaaf Euh, daal di koy jaay doole ne ko dañuy jël tuyau yi jaarale ko foofu bu ngeen gisee ñu taaloon Ukraine ma ne lu bari def ci aju te ba mi ngi tàkk kenn xamul kañ lay fay Ukraine dafa amoon ak jaxasoo moom ak Erdogan al xikmatu daalatul mumini anna wajada a fa huwa wa ahlaha maanaam xam-xam moom jullit da koy wër fu mu ko fekk jël Rajab Tayyip Erdogan day jokkaloog mboolem réew yi àddina yi nga xam ne dañoo def avancement ci biir technologie bi waaye nag walaw bi Chine bu ko yonent bi waxee te Chine du ñu jaamukatu yàlla jaamukati xirim lañu gëmuñu ne yàlla am na te noonu na sax na ngeen wuti xam-xam ba Chine loolu dañ ko war di sàmmaale jamono ju nekk Rajab Tayyip dafa amoon eh, ab lonkoloo bu mu ak Ukraine la mu soxla woon ci Ukraine mooy jëli fa technologie machine yi nga xam ne moom moom lañuy def ci roppalaan yooyu ñiy giide muy naawal boppam ndax machine yi gën a am puissance ci àddina bi ci dawal loolu ñuy wax roppalaan dànd dawal yi Ukraine moo ko daan defar ñoom xam nañ xam-xam dañoo xamul rek waaye Ukraine moom xam la moo tax ñëpp màbb di fa jàngi euh, waaye Ukraine itam jëmmi roplaan googu ñuy wax bayrax daar moom itam da koo soxla woon ci wàllu ñu jàngal ko ko loola moo duggoon seen diggante ñoom ñaar kii daa am jëmm di wut kii daa am moteur di wut jëmm maanaam ki am ki am ki am jëmm sax muy Erdogan am na moteur mais am na secret yu nekk ci moteur boo moteur roplaan yooyu nekk ci Ukraine yoo xam ne Erdogan waa këram dañ ko war a xam te xam nañ ko ba noppi fi mu ne nii moom buñ tàggali ko ku dem si ku nekk dem si yoon Erdogan moom lay dem yoonam waaye duggalante googu ñu duggalante woon nag ak duggalante gi nga xam ne moom la Erdogan duggante woon ak Pakistan te Pakistan yore ay centrale nucléaire yoo xam ne dañuy defari bombe atomique ikra nit yor boroomi xam-xam yi ko man yoroon ay centrale lu mat juróom benn central nucléaire yoo xam ne moogoon ngoon ci seen dëkk tubaab bi ndax leen ba tëj ko yàq jël at mi a delloo ko riis yi ñaar ñetti dëkk yooyu lënkaloo bi ñuy lënkaloo te it Erdogan maanaam bu dee côté euh, Pakistan la mënuñoo defar ay chars de combat mënuñ ko defaral seen bopp mënuñoo defar ay navires de guerre mënuñ ko defaral seen bopp ak yeneen ni xeeti missile yi mel ni ay S400 yu demee noonu te yooyu Turquie mën na koo defar Turquie itam bëgg naa am sukkandiku kaay ba rassembler bombe atomique te Pakistan mën nañu ko euh, looloo waraloon diggante Ukraine ak Pakistan ak Russie ñu ne ah, xawma ak Chine ak ak Turquie doon jàppalante saa yu daay tàkkee ci dëkk rek xamal nañu ko taal bari na luñ cay diir. waaye nag yow ma tax ñu di ko diir danga ci cay da xam sa bopp bu Erdogan jógoon wax ne Ukraine kat maak moom dañoo jàppalante woon ci wàllu technologie ah kon su ko Russie songee damay xeexale ko déedéet da koo jaayoon ñaar fukki roplaan ak juróom yoo xam ne ay bayrax daar la yoo xam ne Ukraine amu ko woon Rajab Tayyip Erdogan moo ko ko jaay ñàkkul ne am na lu mu jëlee foofu ci wàll gu dem li technologie yooyu moom ci ëpp moom Erdogan waaye nag ànd nga éggul ci eh, Amérique bëgg a daaneel Union soviétique complètement te xam na ne moom buggut a jàkkaarloog moom ndax dafa yor ay bomb atomique mu bëgg wut réew mu am doole moo xam ne daa amee doole ni Turquie te amul atomique nga xam ne atomique moom fekk dóor ñu ko doo ko dóoraatee waaye bu jàpp bu songoog bu Russie ak Turquie balaa niiwal ko doole ba ba mu ne làcc day fekk riis yi itam daanu ba daanaka jóg di koy të te ñoom ñaar dañoo bëgg di créer kenn ku nekk day bëgg créer sa morom problème pour doole niiw doole yow sa doole yi jóg Rajab te xam na loolu ba guerre ba déclaré te dem jàppale Ukraine dafa toog këram na déedéet du ko def guerre boobu yoonam nekku ci danaa tëj nag buntu géej gi ba kuy dem di sotti doo fi jaar ndax loolu day indi guerre mondiale côté boobu loolu laa ci leeral côté bi ci des muy côté Israël ak Rajab Tayyip Erdogan lan moo tax ñu lonkaloo noonu li ci topp mooy Rajab Tayyip Erdogan président Israël daf faa dem am ku ma laaj ci sama xaas ne ma yow sëñ Cheikh lii loo ci xam gisati nga Rajab Tayyip Erdogan li mu defati Rajab Tayyip Erdogan <laughs> président Israël daf dem Israël lu mu lu mu def ci àddina ci jullit ñi li mu yàqal Palestine ba noppi muy dem foofu ma di ko xamal ne Israël la tax mu di fa dem Israël dafa gas ay teeni gaz ci suufa Palestine ba dara desul lu dul mu war a jël gaz bi dem jaayi ko Europe war a jaarale nag gas bi ci géej goo xam ne Erdogan moo fay dogal foofu la Erdogan jàpp Israël point te Israël tamit dafa àndoon ak Amérique ak fi ñuy wax Yunaan muy Grèce dafa ne mën nañoo jaay Erdogan doole ba jaare ba nangu géejam googu nga xam ne moo ko àtte jaarale fi too mu dugg Grèce dem biir Europe xam nga ne tubaab bi français yi ñëwoon nañ fii ak seeni bato waaye ba leen Erdogan gërbalee dañoo daw raw yi naan jóge fa ñu bidil si waatuñu américains yi ñëwoon nañ fa ak seeni bato waaye bu ñu yëgalee Erdogan xam nañ ne kii kët du koo xam ne kuñ mën a jaanjaaf la te leen mën na leen cee fekk looloo toxoon sax ñu di ko leyal Union soviétique bëgg bu duggee ca guerre booba dooleem jeex Erdogan rek rek xam na loolu bañ a dugg ca guerre ba Israël dem na ba Europe dawrees na ko ah nun kat Erdogan bi mënuñu ci moom dara waaw ginnaaw mënuñu ci moom dara nag te géej googu moo ko àtte te fële tiwoy jaar am na loo xam ne moom tiwoy gaax jaraluñu ko loolu jàll na Amérique yi def na noonu Israël des ci moom dong Israël leen dong la yaakaar léegi naa dem wax ak Erdogan directement moom mi nga xam ne moo doog a àtte foofu ndax man ñi ma yaakaaroon a ah, ñooñu daw nañu rees kon maa def ci pexe mi looloo tax Israël di dem ci Erdogan di bëgg a waxtaan ak moom Erdogan lim ci xool mooy Israël moom dañ koy jëli fii mu ne complètement lañ ko fi jëli yelente woon mu def ay tiwo tiwo yi jaar ci géej gi ba dugg biir Europe ëllëg jullit ñi moom seenam réew bu ñu ubbee seen tiway gaas di ko jaayal seen bopp Europe fekk Israël defal na seenam réew ba mu ne booy ndax xam ngeen ne amul menn réew moo xam ne colonisé na meneenam réew di liggéey réew ma ba di fa jógee lu dul nii dafay bàyyi lam fa defoon lépp muy njariñal doomi réew ma te bërki démb dama leen di junju ne Ukraine guerre lu ni ci li ci aju yëpp am na loo ci xam ne sax du ma ko wax xam nga Ukraine mooy dëkk bi nga xam ne fi la banu Israël gën a bëri ay cosaan yiñ fa def am nañ fa seeni jaamukaay yàlla am nañ fa seen armeli cosaan am nañ fa lépp maanaam lañ fa dëkk juif yi bi ñu leen dàqee ñu génn Madina dem Madayin jóge fa sarale dugg biir Union soviétique gi ngeen di wax tey muy Russia Ukraine googu fa lañ nekkoon li ëpp ci juif yi nekk ci riche yi Ukraine lañ cosaanoo waa jooju nga xam ne moo jiite Ukraine ab juif la ab banu Israël la ñoo fa gën a bëri boo gisee xam-xam bi demee fa noonu ba ñëpp màbb di fa jàngi bañ naan am na fa fukki junni yu fa dem yu bokk ci euh, Maroc ak ñaar fukki junni Algérie ak nit nii xam-xam ba dafa nekk boroom xam-xam yi nekk fa di jàngale waaye fi mu nekk nii tamit banu Israël gii nekk ci Palestine ñoo ngi xalaat ne waadul axira dafa bëgg a ñëw te ñoom musiba moomu du leen fi fekk te seet nañ àddina bi ba mu daj Ukraine daal lañ xalaat ne man nañ faa dem dëkk fa bokk na ci tax nag Union soviétique riposte ne déet déet yéen kay ginnaaw fu ngeen dem musiba fay ne li jot a nekk fii lay ne waaye du ngeen ci yokk leneen loolu bokk na ci te loolu xeexu biir la nit xamuñu ko ñaareel bi am na ay laboratoire biologie yoo xam ne yu bari la yoo xam ne americain yi dañ koo defoon ci Ukraine mu dend ak frontière Union soviétique bi muy muy muxtabaraat biologie laboratoire biologie yooyu américains yi dañ fa doon defar ay feebar yoo xam ne mën naa xëy raaf àddina ñu di ko liggéey di ci ay xeeti gunóor yoo xam ne ña ngi ko fa doon liggéey bi ko Union soviétique yégee nag bi ko Russie yégee nag daal dina xaa kii léegi dafa xam ne bu attaqué ma ci wàllu guerre dinañ ngi raafante ma ak moom bu mu attaqué ci wàllu ay feebar ak ay aw a moo di ay mbas laboratoire biologie yooyu Union soviétique dem na ba teg ci loxo xam ne américains yi ñoo ko fi defoon te loolu buñ demoon ba ubbi ko mu dugg Russie Russie moom day jeex ndax dañuy am feebar yoo xam ne duñu xam lu koy faj te loolu da leen di niiwal doole te kon mën nañ leen a rey ci côté boobu fi mu nekk nii li ngeen xamut mooy réew yi am ay bomb atomique léegi euh, pour ñu raafante duñ jéem a raafante ci atomique ndax kon kenn du la jig ci ñoom ñaar waaye xeeti feebar yuy raaf àddina la ñuy jéem a defar ci ay laboratoire di ko xëppante waaye yal yem ci ñoom rek te keneen ban cee bokk waaye loolu bokk na ci secret bi tax Union soviétique daal di song Ukraine loolu néewoon naa leen am na lu nekk ci biir luñ xam loo xam ne dañ ko mas a wax la ca topp moo koy moo ko ni ci Erdogan léegi nag bi loolu amee Israël xam na ne dem sukk ci kanam Erdogan dong moo ko mën a may tuyau yooyu jaar foofu waaye bu sukk ci kanam Erdogan ne ko loo bëgg waxal tuyau yooyu du fi jaar Erdogan itam li mu gis mooy tuyau yi de bu ko Israël defaree ci milliardam ba noppi itam buñ ko dàqee si bitti fi la koy wàcc te jullit ñi ñoo koy jëriñoo te loolu jullit ñi ñu ko gis te lu ci biir rek xool ko ci li fi tubaab bi bàyyi woon dem usine yi ñu bàyyi woon courant bi ñu fi defoon tali yi lépp li fi defoon bul duwaan ji dekoon Dakar maanaam asele yi ñu fi doon lépp bu ñuy dem dañ ko fay bàyyi kon tamit Erdogan li muy xool mooy Israël lépp lu mu def te def ko ci Palestine bu génnee fa la koy bàyyi looloo tax tool yi garab yu mag yooyu ci Palestine te Israël def ko fi bu tàkkee Erdogan ji lay na daf dem <laughs> fay ko ñibbi ndax moom la tax mu di ko fay di ji xam ne lii bu tàkkee ba def ak doom bu fi Israël di jógee du amal njëriñ jullit ñi te jullit ñi dañoo yàccaaral ndax fi mu nekk nii fépp fu ñooñu dugg def fa naataange ñun nag fu ñu dugg def ko de gor ak yàq rek mooy suñu métier te war nañ ci war nañ ci génn loolu ci secret yi la bokk li ci topp mooy weeru koor yi mi ngi jubal fii te Israël ak euh, Turquie defe naa ne dañoo bokk ci otaan mbaa buñ bokkul ci otaan bi am na mbooloo muñ bokk ñoom ñaar mbooloo moom ñu bokk ñoom ñaar sax mooy otaan ci boppam waaw ci lañ bokk ñoom ñaar tax na Turquie mën nay dugg Israël Israël mën nay dugg Turquie bu weeru koor jotee da di seet ne ñoo ñi nekk ci baytul muqaddas di défendre jullit ñi ñoo ñi waa Turquie lañu boo demee Turquie dañ faa sos ay jamayaat xayriya yu bëri fi nekk nii boo demee tey na ngay dajale sabaro aatiyaag nañuy jàppale banu euh, maanaam arab yi ca banu israil ak nañu leen di jàppale ca tarawi yaag nañu leen di organiser li seen jigéen julli ga ñuy julli ca baytul muqaddas ak nan la ñuy def ba dox seen diggante ak ak siif yi maanaam bu weeru koor jotee turki dañuy mabbu fees dell ci baytul muqaddas waaye dem googu ñu fay dem ne dañ fay wooree ji mënoon nañu woori màkk wala feneen te it daanaka ay màggat duñ fa dem ay waxambaane dong la ñuy doon la tax ñu di fa dem mooy bëgg a aar ñi nga xam ne ñooy jullit ñi war a jaamu yàlla foofu ñoo tax ñu di fa dem te Israël lépp lu ko Erdogan mën a santaase dana ko nangu ngir bëgg tuyoo yi jaar foofu ndegam dem na ba mu wóor ko ne Europe mënu ci dara Amérique mënu ci dara léegi Erdogan rek a ci mën dara kon dana wax ak Erdogan Erdogan itam li muy xool mooy bàyyi rek wala mu ko bàyyi ba tiwa mi jaar fi li ma bëgg ci ci Palestine lépp dana leen ko defal te incha allahu dañ leen di dàq ñu génn ci biti ti way gaz yi jaar fi fee usine usine yam fa defal garab yañ fa jëmbatëg étage yañ fa tabax ak lépp day day delloo maanaam Palestine moom lañuy ñëw rek am réew mu ne booy mu mel ni Europe te fekk Israël moo ko defar Erdogan moom loolu lay xool te gëm naa ne li Yonent bi wax ne banu Israël danañ leen delloo si waat foofu waaye bu ñu leen fa delloo si danañ fa waat loolu moom lu am la téeméeri dëkk ak ñaar fukki dëkk ak juróom Israël tàggalikoo nañ fa bi ñuy dem si waat baytul muqaddas indi nañu juróom ñett juróom-ñeen fukki làkk yu bokkut ndax yahudu falasha làkk éthiopie lañuy ñuy làkk yahudu riche làkk riche la làkk yahudi Allemagne làkk Allemagne la ñuy làkk yahudi nekkoon Turquie làkku Turquie la ñuy làkk yahudi nekkoon Iran làkk perse la ñuy làkk yahudi nekkoon Irak làkk arab la ñuy làkk yahudi nekkoon France làkku France la ñuy làkk yahudi nekkoon Angleterre làkk Angleterre la ñuy làkk maanaam diina bikum la fii fan jooju alquran waxoon moo ñëw nekkoon nañ ci téeméeri dëkk ak juróom ak ñaar fukki dëkk ak juróom ci àddina bi wala lu ko ëpp ñu ngi ñibbisi indiwaale juróom-ñeent fukki làkk yu bokkul te bokk wenn askan loolu mooy ji naa bikum la fii fan te ji naa bikum la fii fan jooju nag ah jaasu xilaala diyaar moo ciy topp waaye noonu loolu nag da di waxi alxuraan la te ku gëmul alxuraan dëgg doo ko setantal waa nañ seet Erdogan ak Israël rek ba xam fan la waa neen di bu jëkk ci bëtam